sénégalaise dafa mel ne xëy na te dafa am ca dafa franchir euh, beneen beneen état bu mu yegg mais les signes étaient étaient déjà là depuis assez longtemps malheureusement on a trop laissé faire les responsabilités boo ko cité tey jii nii fan nga koy féetale. xam nga dafa am presse bi politique ak lépp dafa am mu bindoo mu daawoon Ndiaye ma am na loo xam su ma koy def. Mm-hmm. ci yow laay def si émission. am na émission yoo xamante ne ay émission polémique la. su ma fay dem mhm. man maa koy choisir dem fa. semaine bii laa mujj fii ak Maymuna ak na Ndour Faye mhm. bi ma ñëwee maa ngi koy tooñ naan ko mais yow lan moo tax saa yu may ñëw si émission ku nekk woo ma di ma yedd <laughs> mais parce que elle a un style d'émission mhm. boo xamante ne noonu lay tenir émission quel que soit par ailleurs les am benn kii yenn saa elle cherche à me coincer si biir émission mhm. mais loolu muy def si biir émission moo tax ku nekk jóg di suivre émission ba muy mhm. euh, ba muy def chacun a son talent personnel la muy def noonu si émission ba nit ñëwee si émission nga xam ne balaa nga fee génn di nga ñàkk tooy xepp bu amul woon nit ñi du ñu ñëw fii du ñu ñëw def émission de te pousser à li ngay ressentir ce que je vis avec Mel su ma nekkee fii si biir émission ak bu ñu paree di débriefer maag moom c'est deux personnes totalement mm. euh, diamétralement opposées mais c'est comme ça la deuxième chose c'est quelqu'un boo xam te dañ ko war a rendre hommage maa ngi wax sama si suba mais man mbaa damaa cartu may mun parce que maa ngi koy wax ne ko ren la jàngale su may def cours leadership mm-hmm. parce que fi nga jógee ba monter aujourd'hui un groupe en

que ce qu'on est en train de vivre là ce n'est pas une agression politiquement intéressée ah. parce que c'est ça véritablement le problème c'est-à-dire il y a des coïncidences qui sont troublantes dans la vie euh, politique ah, ah. c'est-à-dire euh, lu mu doon wax man maa ngi toog fi barki démb muy artu ay nit si si euh, biir kii bi am na lu mu yëgoon ci ci boppam yii xew tey lu mu doon cee génn loolu duñu duñu préjuger en fait des résultats de l'enquête nous espérons que l'enquête va se faire très vite et de façon très mm-hmm. mais j'espère que au on ne verra pas un dessin politique dans dans dans cette agression la ah. parce que bu loolu amee amul dara lu ko gën a lu ko gën a gaaw moo tax yenn saay bu ñuy wax ay ay ay yenn waa il faut euh, ñu xam xam nga li bon si si si ab dëkk moo ñu dem ba nga xamante ne nit ko nekk day def dara ne du mujj fenn. Mhm. c'est ça qui mhm. y a une impunité dans un pays lu mel nii lay lay mujj lay mujj jóg. Mhm. gis nga dañ fiy dund ay situation yu bari ay nit de ci seen bakkan ay nit ñu ñu jël euh, tata sànni si benn ci euh, ay nit dee. lu bëri dafa xew ci biir dëkk bi moi je ne dis pas a priori que je suis contre l'amnistie mais l'amnistie répond d'une politique criminelle d'une politique de stabilisation répond justement à des choses à chaque fois qu'on a fait une amnistie au Sénégal c'était parce qu'on avait la kii. regarde mmh. depuis Mandela. à chaque fois ñu def ay affaire ci ay dëkk dañ naan commission vérité et réconciliation. Mmh. c'est dañuy xam liy dëgg ba noppi ñu ne ah lii kat mooy dëgg. Mmh. après ñu assumer euh, cette vérité là ñu war a dem baalu ci dem baalu et puis ñu et dëkk bi dem ci. dem euh, à autre euh, chose. gis nga aujourd'hui on est en train de régler un faux problème avec l'amnistie pourquoi parce que.

Euh, boo xamante ne un jugement prononcé na yow mi mënatoo nekk euh, électeur à partir de ce moment là on n'a pas de problème mm-hmm. ñii fi nekk yëpp mënuñoo wote ñoom ñëpp nañu mën a wote ñoom ñëpp nañu mën a nekk candidat ñoom ñëpp nañu mën a def donc il faut pas ñu def amalgame mm-hmm. entre li fi xewoon ak li nga xam ne moom moo fi nekk aujourd'hui donc ce que je pas mooy li fi xew nii ay nit dee bokk jàmbur dee fi doomu mm-hmm. jàmbur dee fi nit yoon bi ñu xëy